dañu jot information comme quoi directeur de la pharmacie def na note ministre bi pour que ministre bi nangu arrêté manam nangu licence bi nga xamante ni madame pharmacie mom la am pour exploiter la pharmacie dakaroise euh, li ñuy wax sunu jargon abrogation ñu japp ne décision bobu teguwul ci dëgg teguwul ci dëgg parce que mom madame dafa nekkoon ci benn local muy immeuble indépendance benn moment ñu war defar immeuble bi boroom muy IPRES ne ko génnal nga may ñu bu ñu defaree ba pare nga ñëwaat moom aussi yoon may ko ko bu defaree ba pare mu war moo fa war a dellu si muy def li ñu naan ci tubaab exercer maanaam bindante na ak waa euh, IPRES 2015 ba 2020 mi ngi ak ñoom ba directeur IPRES bind ko ne nangu nañu ne bu ñu paree dinañ la ko delloo ba ñu waxtaan si ñaata lañ koy ñaata lañ ko koy joxe au mètre carré benn moment sax IPRES jël na ay technicien boole ak moom ñu dem xool nan la ñuy defaree local bi donc ñu jàpp tey ni moom bi nga xam ne mi ngi xeex te loolu jeexagul ndax am na procédure bu nekk au niveau du tribunal du commerce bu mu attaqué le bail bi nga xam ne moo nekk tey diggante IPRES ak Pharmacie Nation tant que loolu jeexagul ñu jàpp ne ministre warul mën jël. décision abroger son arrêté parce que ba légui dara euh, terewu ko rejoindre local bi nga xamné fofu la nekkoon. li ci gëna jaaxal décision bi ministre mi ngi ko daté en tout cas arrêté bi ñu ko daté le 11 février wanté weer lañ ci teg bala mom mi jot notification bobu mi ngi ko jot le 8 mars directeur de la pharmacie yónnee ko ko mais li ci gëna a moy dafa ne ko léegi indil dossier pour transférer sa pharmacie ñun kay ñu jappalé bo né nit ki nangu nañ sa licence moy amato pharmacie ki nga né amato pharmacie nga ne ko transfert sa pharmacie. lolu moy lolu yëpp day wone li nga xam ne tey jii mooy complot bi nga xam ne taxaw na direction de la pharmacie ministère ak IPRES pour que madame Mbodj ñu nangu fofu mu nekk ñu jox ko keneen euh, ñu ñu nak ñun syndicat ñu ni lolu duñ ko nangu parce que un teguwul ci dëgg ñaar li nga xamee ni tey mooy yoon bi nga xamee ni organiser le secteur de la pharmacie décision bu melni dafa ko dafa ko violer ta dafa am li nga xamante dafa am solo ci sunu métier moy li ñuy wax éthique et déontologie décision bi tamit dafa ñëw encore euh, dëggaate lolu nga euh moy euh éthique et déontologie ñuy fatali né ciowli mi ngi commencé 2020 précisément bi docteur de la pharmacie proposé au ministre de la santé ñu transféré pharmacie Nation indi ko fii pharmacie dakaroise nekon ñu fàttali pharmacie Nation tëj na lu upp tay ji juroom ben juroom ñetti at japp juroom ñenti at pharmacie bu tej lu upp juroom ñenti at nga di dang koy transféré ci place bi nga xamé ne amna na ko jox ba pare mu doon problème lolu motax mom madame boj bi nga xamé ni mom moom pharmacie dakaroise and ak syndicat ak suni ak ay avocat ñu yob problème bi devant la cour suprême donc loolu yëpp daal gannaaw bi bi syndicat gisee loolu tey jii idée li tax ñu woo leen mooy dañ koy naqarlu mais aussi di wax ministre de la santé ak di wax directeur de la pharmacie et du médicament que ne pare nañu pour yóbbu xeex bi xeex ba fu xeex yam pour que lii ñu bëgg def nii mu bañ a jàll. ba tax na syndicat dina convoquer la base dinañu convoquer assemblée générale extraordinaire ci fan yi di ñëw pour que pharmaciens yi prononcer wu wax seen xalaat ci mbir mi parce que jàpp nañ lii bu jàllee kat di doy waar dina am ci si suñu profession lenn nak lañu japp jàpp ne ñu bëgg informer légui opinion bi que bu leen bett suba bu ñu déggé ni nañu pharmacie ci Sénégal yépp parce que li bu jalé dina am ay conséquences bëggu ñu nak suba ñu def ko ñu ne ah ñom kat avertiruñu on a averti